mooy ku nekk daal nga joxe sa gis-gis librement loolu d'accord naa si mais ak respect bu bëree bëri. Mhm. Euh, bi nga xam ne ñi ñuy seetaan am nañu ko ci ñun. bu njëkk bi mooy euh, li ñu njëkk a jàngat mooy problème de communication dafa taxaw ci euh, président Macky Sall ak ay nitam. problème de communication boobu feeñ na si ñaar ci wax ci ay discours am. wax na ne am na dossier yoo xam ne bu ñëwee ci man buñ ko waxee ministre bi wax ma ko man dama ci teg suma loxo loolu erreur de communication la. bu ñu demee corona bi tey am na corona bi xam nañu ne feebar bu doy waar la mi ngi rey ay junniy doomu aadama mm. mais tey dafa mel ni sénégalais yi dañu négliger maladie bi wala dañu ko fàtte demuñu vers l'essent l'essentiel mu dem ba ne corona bi garab yi nga xam ne indi nañ ko boo leen euh, parewul pour ñàkku man dama koy maye loolu mm. erreur de communication la le ministre de l'intérieur bu fekkoon xam na vraiment lan muy terrorisme terrorisme doo ko accuser peuple am le peuple doo leen accuser de terrorisme par terrorisme conforme wul ak suñuy réalité fii dañ fi am diine ju taxaw diine ju wër am ñoo xam ne nii ñoo fondé ay tarixa seen jaar-jaar mën nañ ko jàngale si ay université si àdduna donc kon mbirum terrorisme kenn du ko giñ sa askan c'est parce que ay manifestation am na manifestation bu amee dañ koy analyser en profondeur ñi ngi wax ne ay ay ay ay bandi dañ ci rax di sàcc mais manifestation yi sur l'étendue du territoire national man damay liggéey ci affaire prison di liggéey ci récidive di liggéey ci criminologie euh, di liggéey ak ñi nga xam ne day société bi danaan dañuy def ay ñaawteef bu fekkee da nga natt seen pourcentage si mbooloo mi génnoon sur l'étendue du territoire bu fekkee damay joxe xayma buñ doon euh, fukki nit da wax ne ñetti defkatu ñaawteef ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci rax parce que pourcentage boobu dafa faible ba ñoom mënuñu jël li nekk si Ocha yëpp dajji nit ñi rey leen. kon léegi askanu Sénégal ñi nga xam ne dañu dem nekkuñu société bi dane du ñu ay jëlkat ñu dem profité ci occasion bi jël ay saaku ceeb jël ay dëwlin yóbbu seen kër loolu war nañu ci mën a def jàngat te pourtant ñooñu du ñu ay sàcc ay nit ñu normal lañu entre guillemets ñoo dem profité ci occasion bi kon foofu mën nañu gis ne nit ñi xiif nañu mën nañu gis ne nit ñi sonn nañu tey vrai problématique gu sénégalais yi mooy problème ressources naturelles yi nga xam ne am nañu ko fii ñu koy piller mooy problème emploi bi nga xam ne la jeunesse am nañu ko étudiants yi dañuy nekk université di jàng suba ak ngoon fak droit ñaata maîtrisard lay produire par par par année taximaan yi ñuy raket ci tali bi jour et nuit Sénégal da ngay fayeeku nekk fonctionnaire boo si fayee location fay si ndox fay si courant facture ndox yi dafa cher facture courant yi dafa cher paas jóge Dakar Rufisque c'est excessivement cher loolu mooy vrai problème mu sénégalais te yaakaar naa ne état bi jamono ji toll nii ay xalaatam ay pexeem yëpp foofu la ñu ko war a yóbbu par mbiru Adji Sarr ak Sonko. man loolu ça n'engage que man de damay wax ne même bu fekkoon ne li Adji Sarr accusé Ousmane Sonko dañ ne dëgg la médiation pénale yoon da ko reconnaître au nom des intérêts supérieurs de la nation si loo xam ne fukki doomu aadama ak juróom ñàkk nañu seen bakkan nit ñoo xam ne ba ñuy liggéey seen alal ma sàmba jugul ma demb jugul ñu gañe seen alal maa ñu song seen magasin jël seen alal yóbbuwaat leen sero loolu catastrophe la ci ci ci dëkk manifestation yoo xam ne de 1960 ba bésu tey ji façon fàttaliku nañ fi événement 1988 du ñu ay mag mais fàttaliku nañ fi lu bëri loo xam ne xew na fi ci digg mais manifestation bu am nature bi ñi fi nekk ñëpp xam nañu ne mësut am Sénégal moo tax gars yi dem bay jaxase naan ay force occultes donc dëkk bu demee ba toll foofu dañuy remettre en cause li nga xam ne moom la ñuy état de droit mmh. état de droit. mooy égalité devant la loi mais égalité devant la loi boobu abul. tey ñoom mais mais même bu fekkee état quand l' état parle de force aussi est ce que loolu nekkul benn aveu d'échec par rapport ak sécurité intérieure bi nga xam ñoom ñoo ko waroon kaaraange ba ba ba ñooñu duñ fi dugg également. mais évidemment aveu aveu aveu d'échec aveu aveu d'échec aveu d'échec aveu euh, am na moo tax souvent sax dañuy wax ne le président Macky le président Macky Sall. est-ce que vraiment sincère na ci discours bi nga xam ne nii wax na ko man loolu ça n'engage que man ci démocratie la ñu la ñu nekk parce que woote na discours jàmm woote na discours daal mais boo boo ne yow woo nga sa askan si jàmm da ngay poser ay actes yuy firndeel loolu mooy maanaam Pape Ndiaye même ma daaneel jox na sama temps de mm-hmm. ñoom Guy Marius Sagna ñi ñu jàpp ci ci kaso bi au nom de qui et de quoi ñu téye leen si prison bi. Assane Diouf Clédor Sène donc kon jàmm xoole boobu ba léegi ñi ngi kon ne jàpp ay jeunes di leen yóbbu sur l'étendue du territoire déféré nañu si quatre cent cinquante individus jàppal nañu leen ci ay jàpp yoo xam ne jàpp yaa ma neex rek la donc dëkk bi instant bi dafa soxlewul ay problème dafa soxlewul ay jafe-jafe Sonko viol la ndaw si doon giiñ viol li ñuy wax viol la ndaw si doon giiñ sa départ ba il fut ancien ministre de la justice les juristes ñu ngi ñuy seetaan les avocats ñu ngi ñuy seetaan ñi am xam-xam ci wàllu yoon ñëpp ñi ñuy seetaan xanaa leneen la ñuy wax mais li ñuy wax délit viol moom kenn ñi meetu ko fi wax fii nii nii kenn ñi meetu ko fi wax d'accord d'accord donc dans la mesure où délit viol kenn des intérêts supérieurs de la nation dañu war a def dossier sans loi bi nga xamee ni mooy criminaliser viol donc xam na carrément li nekk ci bis ak lu war a def ci nit koo xam dañ ko accusé viol donc loolu laa bëggoon yokk. d'accord léegi léegi nag ñu déglu invité bi nag waaw léegi waaw merci beaucoup <laughs> waxtaan bi waxtaan bi bi li ma bëgg a wax. c'est un sujet très passionnant ah. xumb na waaye mais dama bëgg a wax rek na lu toll nii suñ ciy wax faaw ñu ànd ak dal. Mm-hmm. ndax euh, ca ndorteel la simpaloon na. waaye bu ñu demee yëngal na am réew lu yëngalam réew lu lu ñuy caaxaane euh, man duma xarab kenn damay utiliser sama xel ànd ak dal ñu xool fu ñu jëm parce que loolu la réew mi laaj mm. man dama naan mbir mi nan la tàmbalee nit moo ñëw teg tuuma beneen nit ne ko danga ma sàkku ci loo xam ne bi ànduma ci may wax ne Sénégal nu suñu constitution bindee dañ ko bind dama koy wax ci tubaab au fronton de la République dañu bind les hommes naissent libres et égaux en droit fii Sénégal nit nit ci yoon ñoo yem amul góor amul jigéen bu ci juddu kenn ëppalewul dara sa morom ci juddu du ci alal du ci xam-xam nit ñi ñoo yem su dee nit ñi ñoo yem kenn ku ci nekk nga dëkk Sénégal ngay mag ngay ndaw danga am li la war da am àq ak yelleef man tey su ma jógee dem tribunal ne diw dama koy porter plainte indi samay élément mu xam damay wax dëgg walla may wax safaan wa waaye ndegam dama porter plant sama plainte boobu mënuñu taxaw rek ne kenn du ko laal. kenn du ko laal wallaahi ala kulli àll plainte boobu dinañu ko xool. xool laal donc ku jigéen moo ñëw ne am na ko ku ma sàkku te sàkk boobu mu ma sàkku joxuma ko ànduma ci nii la demee ak lii ak lii ak lii ak lii. mu dem ci officier de police judiciaire muy def enquête am kookee ñu ne yow la ala kulli àll faw ñu saytu ko may wax tey fan la toll parce que aussi baax na ñu wax dossier boobu fan la toll ku jigéen ki daf ko teg tuuma nekk ko tuuma bi lii la ak lii ak lii ak lii ak lii mhm. ñu dem tribunal tribunal tuumaal ko parce que inculpation ci wolof mooy dañ la tuumaal suñ la tuumaalee euh, ca jamono bañ la tuumaalee attekat ba ko yore du kuy atte juge d'instruction du atte day saytu day saytu déglu ki ñëw taxaw tuumaal déglu seede yi déglu jumtukaay yu mu indi comme ay preuve xool ko xayma ko kooku su koy def li tubaab di wax c'est à charge et à décharge day seet ci seede yi day seet ci mbir mi nu mu demee li nga xam ne ne bii am na luy dëggal tuuma gi ñu teg ki ñu tuumaal waaye du yem ci loolu day seet aussi mhm. ki ñu tuumaal ki lan moo nekk ci dossier bi loo xam daf koy setal lépp lu koy setal daf koy seet lépp lu yokk tuuma daf koy set xayma saytu xool segg su pare mu ne li ma yore doy na ma yóbbu kii ñu atte ko ba tey ñu yóbbu ko beneen attekat koo xam ne cette fois ci attekat boobu du xayma dafay atte foofu la ñu toll ma ne nag loolu man de euh, ci ñeent fukki at yi ma jàng sama liggéey ma jàpp nag ne xanaa nit soo defee benn métier ñeent fukki at te euh, wax dëgg neex yàlla nga normal rek sa métier war nga ko mën du question saabu lu olof di wax saabu du fóot boppam mais dafa am benn mag bu ma bu ma doy wax naan kenn ku ci nekk xam nga li la yàlla mën a jox ak li la yàlla mënul jox kenn xamul nag lan la la yàlla di jox waaye li la yàlla mën a jox soo toogee di julli nga ànd ci ak maandute ànd ci ak ngëm yàlla toog di ñaan di ñaan lu baax xam nga ne yàlla mën na la ko may waaye soo toogee su dee jullit nga de julli woo wooroo sàkkoo muurum koor defoo lu baax nga gis magum jullit bu jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yàlla bay baaxee ko lu mu ko baaxee nga ñëw taxaw ne yow yàlla dama bëgg li nga ko baaxee nga dindi ko sotti ko jox ma ko xam nga ne yàlla du la ko jox kon kenn ku ci nekk xam nga fu ñu jëm ak fu ñu dul jëm dégg nga kenn ku ci nekk yaa xam loo def ak loo deful man de du ma waatal kenn man sama bopp man Amadou Sall man sama bopp dong laa mën a waatal du waatal keneen waaye nag mbir su amee nit taxaw ne diw moom a def lii porte naa ko plainte plainte boobu ala kulli àll su neexee ñu ko saytu su naqaree dinañu ko saytu léegi nag dañuy wóolu ñu koy def loolu beneen débat la wala wóoluwuñu leen waaye man dossier Sonko loolu laa ci mën a parce que nag. Mhm. Sénégal dañu tàmm dara euh, loolu démocratie moo ko indi ñi xam dañuy wax ñi xamul dañuy wax. Mm-hmm, or jamono su tollee foofu ñi xam wax ñi xamul wax faaw aussi ñu ànd ak dal dossier Sonko dossier Sonko kenn xamul lu nekk ci biir. Mm-hmm. gannaaw. ñoom ñaar avocat yi kii juge bi instruction ak ñoom ñaar ñoom ñaar. ñoo xam li xew. mais maître mbir mi tey mi ngi sur la mi ngi sur place bi tey déedéet nekkul sur la déedéet da nga foog nekkul sur la dafa am. parce que man toog naa ci whatsapp mu am ku nekk France yónnee ma benn procès verbal jot naa ko. PV waaw yónnee ma ko kenn. parce que dama jàpp ne awma ma droit yónnee ko kenn waaye nag puisque dañ ma ko yónnee xool naa lan la loolu su dee am nga habitude di def tribunal loolu du dara benn PV la ab élément la. benn pàcc la ci dossier may wax ne xëy na sax mën nañu discuter sur la valeur de ce PV sur le contenu est-ce que mot na wala motul amul solo. mais nag comme ni mu ko waxee PV bi certificat médical collé nañ ko ci. te gis nañ liñ ci bind tamit. déedéet ah. déedéet man du ma dugg ci loolu. damay wax ne euh, d'abord man en tant qu'avocat. Mm. du ma dugg ci lu ma xamul. ok du ma am samay moroomu avocat yore seen dossier. Mm-hmm. avocat yi fa nekk yëpp amul kenn ko xam yaa ma jeex man yaa ma gën a ancien. ma nekk mag ci sama profession di wax naan sa dossier li moo ci nekk. di ko wax ci booloo xaw ma ci dara. leen li ma ci mën a wax mooy li ma ci mën a wax mënuñu ko waxtaane yéen mën ngeen ci waxtaane mais dama bëgg aussi suñ ciy wax ñi ciy wax nañu ànd ak mandute parce que suñu àndul ak mandute du dem bu kenn jiital sa xol man du ma jiital sama xol aji saar nañ ko tudd man xaw ma ko sonko de xam naa ko dajanaa ak moom aji saar xaw ma ko ma su ma ko gis xaw ma ndegam ku baax la xaw ma ndegam ku bon la xaw ma ndegam ku yaru la xaw ma ku yaruwul xamalu ma ko dara. mais loo xam si Ousmane Sonko. déglu ma bàyyil ma ñëw ci Adji Sarr ñëw na moom mu porter plainte tey moom doom la mag la rakk la ak lu mën doon citoyen sénégalais la. c'est ça c'est di jigéen taxaw ne diw daf ma sàkku ci lu ma ci ci lu ma àndul xëy na wax na dëgg xëy na waxul dëgg xamoo ci dara. fii kenn mënu ko waatal kenn xawuma ci dara dem na fa mu war a dem ca yoon dossier baa nga ca yoon ka mu ne moo ma moo ko def muy Ousmane Sonko nee na complot la dañ ma complot xam nga dañ ma complot wax na ko du ma wax ne waxam boobu mu wax moo ëpp doole waxu Adji Sarr du ko wax xaw ma ci dara xam naa ne rek moom de kilifa la ci réew mi xam naa ne am na parti politique xam naa ne am na ñu bëri ñu ànd ak moom xam naa ne dem na élection présidentielle ci ñuy voté ci Sénégal 16 pour cent téeméer yoo jël ci Sénégal ñuy voté fukki ak juróom-benn moom la ñu sàddil seen xob kooku man duma ko xarab may wax ne parce que il faut aussi wax buñ ko ragal Cheikh Anta Diop man ma ànd naa ak moom politique def na politique ba yàlla jëlee ko fi masul am 5 pour cent Landing Savané def na politique ba muy nekk waxambaane ba tey mu nekk mag daanaka magum jëmm presque mi ngi màgget si te mu baal ma sama mag dama koy tooñ masul am lu ëpp pour cent Dansokho cinquante mille neuf cinquante huit ñetti at laa am dafa politique ba bu ñu génn masul am 5 pour cent Ablaye Bathily dafa politique ba tey masul am cinq pour cent Ousmane sonk yàlla bay ko ko man loolu duma ko ko xeebal kooku kilifa la kilifa la waaye ak lu mu mënti nekk ab kilifa citoyen la ëppalewul Adji Sarr dara donte ne ay millions nit ànd nañ ci ginnaam dont ne Adji Sarr sax kenn àndul ak moom su doon sax tey kenn àndul ak moom moom kot moom dong moom tung ñëw taxaw ne kii moo ma def lii dem tribunal fa mbaxane nekkee benn tribunal fa la mbaxane nekkee nañu bàyyi loolu dem ko gëm dañu bàyyi wax ne dañuy calmer wu nañu bàyyi loolu euh, léegi kat euh, ndegam lii la indi fitna lii la indi nañ ko fa yemale. apaisement xam nga moom ci boppam loolu suñ ko defee su ëllëgee su ëllëgee su ma génnee daje ak yow mu toog ba mu ba mu neex ma rek ma teg defu ma la mu neex ma rek ma aji sab kaaba bi ne la tuy dewaat la tuy jël kuuru Baay Faal delloo ko ñett yoon wax man de indi fitna dañ ko fi yemale xam nga du sotti. xam nga loolu du sotti xam nga mënul sotti du sottee noonu dem na yoon may ma rek may ma ma dikk c'est important damay bañ yooyu ñu def ko ak xol dootul ak xol du ak xol hmm. Sénégal Sénégal da ngeen gaaw a wax 1988 man acteur laa woon 1963 du ma woon acteur 1968 maa ngi woon CM2 acteur laa woon am na ñu fi dee 88 am ñu fi dee 89 bu leen ko fàtte. fi la ñu toog fekk fi juróom ñett juróom benn policier buntu RTS dañ leen door si ba ñu dee. loolu mooy li am Sénégal rey nañ fi ay nit ñun fi reyoo ñëpp dañ leen atte. mais bii mosu fi am. ma da ah, nga fekkewul am na lu ko fi gën a. garaaw bii moom am na lu ko gën a garaaw 1900 xam nga dama lay wax. Sénégal 1989. fekk na ma fekk nañu juróom benn policier ñu toog assassiné leen dañ leen dóor jaase ba ñu dee dóor jaase ba ñu ba ba ba ñu sedd guy mais lii sur l'étendue du territoire dama lay wax yow 1988 le 28 février 1988 à 8 heures la ñu jàpp Ablaye Wade wat 9 heures Kédougou taal nañ ko euh, euh, Kaddu Baloo ji taal nañ ko Mbadoxun taal nañ ko cees takk na Ziguinchor tàkk na Ndar takk na Matam tàkk na Ndakaaru takk na du du du la du du tayal guléet loolu am na fi dañ dul am seetlu yooyu jamono télévision yi nu ñu fi amee tey amuñu fi woon presse da nga minimiser li am ku la ko wax ah mais lii mos fi am ko da man ma toog ne la yow yaakaar nga ne man ma nekk fi di politique bi ma amee fukki at ak juróom-ñaar tey ma am ñeent juróom benn fukki at ak ak juróom benn man maay minimiser ay bakken yu rot Sénégal tey li fi xew Sénégal yëpp li fi xewoon 88 foo dem Sénégal xale yaa ngi woon ci mbedd mi xam nga ban différence moo ci am nga may ma. nga may ma kële mm-hmm, euh, wax xam ban différence moo fi am. Mm-hmm. dama lay jox rek 2011 23 juin at bi yoon 23 juin assemblée nationale bi sa fa woon Moustapha Niasse. donte ne ni mu taxaw ni mu taxawee man neexu ma xeer la yore ànd ak Serigne Mbaye Thiam gis nga fa ay màgget. lu nekk assemblée di kaas. gis nga fa ay xale. gis nga fa góor gis nga fa jigéen. te Sénégal gi yëpp noonu la demee woon ay dee am am na ñu ci dee bi yoon ay xale ñoo nekkoon ci mbedd mi. lu ñuy wax yëpp daan xale yi. ba tey jii ñëpp ñuy wax xale yi la ñuy wax. xale yi rek la ñuy wax. kooku différence la. donc lu ci nekk soo koy xayma soo koy analyser da nga koy analyser ci li mu nekk bu ñu sori ci lu ci wax ji li ñuy wax ji bu ñu xeeb li fi am. man duma wolof man pël laa olof moo ne ku xeeb sab gannaaw yàq sab tubéy man duma xeeb dara xeebuma li fi xew li fi xew lu garaaw la li fi xew lu am solo la su ñu toogee ba armée bi génn nekk ci mbedd mi alkaati yi nekk di dem ay bës bëccëg ñëpp tiit kenn gënatul génn sa kër nga naan dama ko xeeb bul ma ko waxati parce que xeebuma ko waaye wax ji loolu xam nga wax ji lan la wax ji lenn rek la am na ku jigéen ku tudd aji Sarr dafa am droit même su dee waxul dëgg parce que xamoon na wax na dëgg wala waxul dëgg même su dee waxul dëgg ñëw na tuumaal nit. vraiment tuumaal nit tuuma bu garaaw kooku mu tuumaal ne tuuma bi amul dañ may complot duñ ko fa yamale. mënuñu ko fa yamale. damay wax su dee Sénégal réewu kilifa la gis nga damay am may ma def beneen parenthèse dama koy wax am na solo Sénégal parce que ñeent fukki at ngi ni ma koy wax donte ne xale. mën na ko jiite senegal réewu kilifa la soo ko bëggee xam laajal Senghor Senghor pour mu falu sëriñ fallu da ci jàpp sëriñ Babacar Sy jàpp ci na Seydou Nourou Tall jàpp ci ñoom Pedro Diop ñoom kële Seyna Issa ñépp ñoo ci jàpp pour que Senghor fallu kilifa yooyu ñoo ko fal gis nga tey Sénégal jamono bi may wax calculeel jamonoy sëriñ Saliou ak sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh seen jamono ñu yeewu suba teel benn soldat rek dof ànd ak ay nitam def coup d'état Serigne Saliou jóg ànd ak sëñ Abdul kale sëñ Abdul Aziz sëñ Ablaye Thiaw ñu ne ko hé soldat ñu ne ko ko dellool pouvoir bi si kaleel da nga yaakaar rek dina ko téye xam nga da koy delloo kon Sénégal donte ne xale mën na ko jiite réewu kilifa la ndax suñu kilifa yooyu la ñun suñuy xol ñoom ñooy gouverneur suñu xol mbir mi pour mu taxaw bu ñu taxawee sëriñ si taxaw ne na fi yem na fa yem te damay wax ci mbir moom la nañu déglu euh, euh, sëriñ Mountakha li mu wax li mu ñaan nañu ñu ñu jàpp nañ leen bàyyi ki ñu war a atte nañ ko atte bu gaaw kon ki ñu war a atte su dee dañ ko war a atte nañ ko atte ci bu leer parce que aussi tuuma ci yoon man je suis un avocat quarante ans ma nekk avocat may wax ne daman dama dugg ministre la justice ay loxo yu set wecc yu weex tal ma génn ci ay loxo yu weex tal ma suma sàcc sama àdduna dinaa ko wax benn yoon laa masa a sàcc sama àdduna 1959 la xawma ma 58 ma nekk dama koy wax fu ma toll naa ko wax ma nekk di jàng alxuraan fii caaroy gaar te li jàll picc Thierno Soumaré di ma jàngal baa si ni de mi ma rak alif laam ra hatung mim jubur yaa alif coodo nu nara may wax munuma dafa amee boutique munuma mu pini ma ne ma doo wàcc midi nga jël ci boutique bi la ci boutique bi tiroir bi la fa benn pièce juróomi dërëm wadd may randatu di randatu ba jël pièce su juróomi dërëm bi moo toogee ba boori midi ma ne ko cernu mu ne ma naa ma ne ko dama bëgg tuur ndox mu ne ma demal tuur ndox juróom bi laa jënd petit beurre donc moom laa añee. <laughs> état de nécessité état gis nga gis nga. waaw maa ngi ñëw ci yow rek gis nga yoon gis nga gis nga yoon. yoon dafa am solo. bés bu ñu néewalee yoon néewal ko doole ñàkkal ko fulla di ko dikk ko nab nabal du sotti affaire bi simple na. gis nga tey man jàpp naa ne wallahi al azim wallahi al azim suñu demoon tribunal ñu setal Sonko ba mu set wecc wane na complot la mais keroog kenn mënatu ko téye dootul nit bu nekk ci àdduna bu ko mën a téye kenn ko téye parce que dañ naan nii kat ab nit la bu ñu ñëw tuumaal ko complot ko pour mu bañ àgg fa mu àgg donte nag yàlla mooy fal waaye ci sabablu ak ci we ci ci ci ci ci ci setal der parce que tuuma li dafa am solo. am na lu ay détails yoo xam bugguma ci àgg yooyu aussi xel euh, baram xam-xam baram xel euh, kële duñ euh, la wax lépp dañ koy junj nit ki taxaw ne nit àgg na ci man am na lu mu def ci man am na lu mu bàyyi ci man dëgg la du dëgg xaw ma ci dara ñu ne loolu mu bàyyi ci moom tonni nañ ko dañ ko tonni <laughs> dañ ko tonni bañ ko tonnee dañ ko xayma saytu ko ba xam lan la su ëllëgee suñu laalee sa tëflit mën nañu xam nagam yaa ko fa def wala defoo ko fa loolu yomb na loolu kenn mënu ko bañ kenn mënu ko bañ man bañu ma li ñuy wax ku ma yàkkal ci gaalu xaj kenn du ko bañ nekk ku mu neex nag ma yàkkal ci gaalu xaj waaye bu ma kenn fekk ma sëgg ci gaalu xaj. d'accord maître tey jii waa allez-y comme li mu wax ni kenn du ko bañal euh, gis nga dossier Khalifa Sall ak euh, ki nga xam euh, excusez-moi Ousmane Sonko ak Adji Sarr Sénégal ñoo dul nangu. après 14 ou 15 ou 17 morts ñu naan dossier bi day niin Ousmane Sonko foog ñu dem jugement loolu sénégalais ñoo ko dul nangu ñun dañoo d'accord si ñu dem jugement parce que ay bakkan wadd na ba pare tous les patriotes sont d'accord que ne Ousmane Sonko ah, dossier Ousmane Sonko ah, génn def médiation Ousmane Sonko génn nekk si mbedd mi sénégalais yi dañoo dem ba découragé ne lii dañ ko nar a si mbedd mi mais askan wi ci luñ taxaw mooy dossier bi ñun ñëpp ci loolu lañ d'accord nañ def jugement mais man foofu yëpp li nga wax noonu pour jugement bi ñëpp d'accord ne patriote yëpp la mais xam nga lan laa bëgg poser la question nga wax ñu euh, communication bi nga xamante ne Euh, ngu kii euh, euh, kilifa dëkk yi def nañ ko si mooy mm-hmm. communication bi nga xamante ne depuis mu commencé ministre de la justice sorti bi mu sorti France 24 li mu wax ñu jóge ci loolu mu ñëwaat ci bi mu demee Fouta mu wax ñu jóge ci loolu Aminata Tall Sall fi bi mu génnee international li mu wax ñu jóge ci loolu ki nga xam ne mooy ministre de la justice ne ay forces occultes yow man foofu laa bëgg a waxee est-ce que ñoom tey d'après président de la république dal gi mu woote est-ce que ñoom tey noonu lañ loolu mooy gën a yee fitna xam nga xam nga man dama fois man dama naan toujours man ragalu ma wax. parce que lu lu war a waxu rek dañ ko wax. ñoom wax nañu. damay waxal yàlla rek man personnellement bëgguma ci wax bëgguma ci wax du ma ci àddu. Euh, parce que c'est vrai gis nga coow li su amee. na nga am tuuti recul je préfère prendre ce recul là. il appartiendra parce que président de la république moo leen fa teg. moom mooy xool li ñu wax li moom naka la koy apprécier. mais sa appréciation. dama la la justice. dama la ne. Mm-hmm. Mm-hmm. dama la ne euh, d'abord j'étais ministre de la justice. Mm-hmm. Euh, ñëw di wax ci ki ma remplacé. ci ñi ma remplacé la bokk. man dama ko jombal sama bopp. dinaay wax ci justice hein mais dafa am wax ji fu mu mën a yem. damay wax ne man ma wax ci lan nga bëgg ma wax. que d'accord naa ci wala d'accord ma ci lu ñu wax. non kàddu c'est pas parce que man. dans l' affaire Sonko Adji Sarr ñoom luñ ci wax li c'est-à-dire que su fitna loolu nañ ko gérer autrement mais man dama bëgg ñu discuter ñu yemale sama discussion man ci dossier Sonko Adji ak lépp lu ko wër d' accord d' accord maintenant euh, euh, euh, les déclarations parce que damay wax dara gis nga Sénégal dañu gaaw a dañu émotif dañu émotif et yu bëri dañ koy régler par l'émotion mm-hmm. mais c'est comme le cas des nervis bëgguma ci dugg euh, euh, lu jàmbur xam nga tey man mm-hmm. ku ñëwoon sama kër fekk fa gardien mu xeex ak yow ñu ne Amadou Sall kat gardien dafa gànnaay woon xam nga kon yaa ngi may tooñ parce que man mër naa mën a toog sama kër wax lu ma neex fii lay taxaw du ma saaga kenn du ma wax kenn lu ñaaw waaye li nekk sama xol loolu mooy démocratie wax sa lu neex nga wax li ngay wax ba pare nga war a génn nit ñi dem sa kër xanaa di nga fa bàyyi gardien mu mu aar sa mu aar sa njaboot mm-hmm. su ñëwee ñu ne ah Amadou Saldé yat moo nekk ci otoom dinaa yi garde yet sama oto parce que damay bañ ko ma mm-hmm. donc yooyu jarul du ci wax wala boog suñ ci wax aussi euh, euh, nañ ci nañ ko wax sans émotion nañ ko wax sans émotion en disant telle déclaration mm-hmm. telle déclaration suñu deful ndànk mën na indi telle chose wala telle autre déclaration mu indi tel dégg naa parce que nañ ko wax ñu ne euh, communication Adji Sarr c'est vrai su ma waxalee yàlla rek am na lu ma ci gêné man laa wax sama bopp laay waxal am na lu ma ci gêné euh, mënoon na bañ a demee noonu mënoon na demee neneen. lan moo ci gêné précisément non c'est pas c'est pas c'est pas important. parce que parce que dans l'intérêt du ñëpp ñëpp wax nañ ko. et comment wax nañ ko non xam na El Hadj Diouf sama rakk la avocat mhm, mhm. est-ce que man su ma fi toogoon tey. di ko tudd di ko wax. di ko wax askan wi nga fi toogal déedéet du question askan wi. parce que aussi xam nga. dafa damay fàttaliku benn bés. damay fàtte benn bés. damay fàtte benn bés déedéet dañuy wax. man aw ma ragal ma wax de damay fàtte benn bés. Serigne Abdoul Aziz Sy. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin dama fàttaliku Serigne Abdoul mhm. Aziz Sy Al mu wax ñëpp a koy dégg. mu ne moom jomb na di dégg ku sant si di wax lu ñagas ci ku lu sant Mbàkke. te muy dëgg avocat du ko def mm-hmm. nga xàmme ma ak bañ ma xàmme mm-hmm. bi ma nekkee avocat ba tey kenn ma gis ma toog ci plateau di wax dara sama moroomu avocat Alaaji Diouf maa ko mag fuuf sama rakk la avocat la mënoon na def stage am sama cabinet man rus naa may toog fii Sénégal gépp di ma dégg maanaam El Hadj Diouf waroon na def li warul woon def li su ma dajegoom ëllëg dinaa sëgg du ma sëgg man du ma nit kuy sëgg mais est-ce que woo nga ko wax ak moom loolu man ak moom la mhm. laaj ko man El Hadj Diouf mhm. samay samay journaliste yi man du ma journaliste mhm. waaye ba may nekk xale nekk parti bu ñuy wax RND dama nekkoon comité rédaction taxaw ñu ci ëpp ci journaliste maa leen jëkk am carnet de carte professionnelle damay arrivé souvent journaliste ma dégg ko mu wax ma jël sama téléphone woo ak moom wax ak moom am na benn bés dama gis benn journal ñu wane ay soldats sénégalais yu tëdd yu dee ma woo journal bi ma ni ko soo demee États-Unis doo gis mukk soldat américain bu ñu tóoree bal ñu def ko photo ma na ñu respecté suñu soldaar yi parce que ñun ñu ngi suñu biir néeg nekk suñu kaw glace suñu climatiseur ñoom ñu nekk ci àll bi duñu défendre ñu rey ci kenn nga génnee ko kooku orma war na donc mën ngeen nangu dégg nga dégg nga doomu bàyyi du ma nangu nga ne xàmmewu ma Amadou sal sama waxu démb man dem vaar leen ma sama waxu démb mooy sama waxu tey dégg nga wax dafay jamono wax mën na ñagas jamono wax mën na sedd waaye wax na dëggu toujours te kii wax na wax li nekk ci moom. mais maître xol xel mën nañu doon mais moom rek laa ñu recadré. s'il vous plaît man man ma tuuti waaw man dafa am lu ma bëggoon xam balaa ñuy avancé. mooy tey jii nii yow avocat ga. Ah. tey boo waroon constitué ci dossier bi ban côté ngay constitué partie civile wala défense xam nga déedéet avocat avocat gis nga euh, euh, sama premier dossier assise 1983 Fadilou Diop moo dokkoon euh, euh, bâtonnier mhm. Boynaar laa défendre yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na Boynaar daal dafa li ko doon toppee dafa dafa def agression ci ay butiku naar yemul rek ci rey borom boutique dafa leen rey rey bu bu ñaaw ba démembré leen mais dañ ma dañ ma dañ ma jël ne ma yaa leen défendre par force avocat nit ñi soo demee cour d'assises yooyu jamono ki ñu fay ñëw par force day am avocat su amul avocat kenn du ko mën a atte te avocat euh, du olof yi dañuy juum ñaan avocat da ngay défendre xam ne ne ki ngay défendre kii euh, li nga koy def moo ko def mu ne ko waaw damay xam kii lu ñu koy toppali moo ko def ma défendre ko waaye man man du ma taxaw ne defu ko gis nga ma joxe benn anecdote man bi may paree sama étude sama papa génn na àdduna sama turandoo man jàll picc lañ ma tuddee bu caaroy gaar vraiment bi sama papa génne àdduna moom la ñu sama papa dénkoon ma ñëw nekkoo dama bëgg nekk avocat xam nga affaire tukulóor yi rek mu ne ma avocat fenkat yooyu doo nekk avocat mukk safara ngay dem te man avocat laa bëgg doon jëm kaw jëm suuf mu ne doo fi nekk avocat bés rek ma xëy rek dem Tiwaawan ñëw ne ko papa mu ne ma naam ma ne ko Serigne Abdoul Aziz baax mi ngi lay nuyu mu a ah, sama xarit nuyu na ma waay kontaan ma ne ko nee na amuloo xam-xam mu ma wax na dëgg su aw ma xam-xam am aw aw ma xam-xam moom moo am xam mu ne man mën naa nekk avocat bu ma bu ma naa def sama métier rek ci yoon mu ne kon nga nekk avocat laa ko noonu laa noonu laa amee kiiwam donc gis nga mën nga def sa métier euh, euh, te doo yàq dara te doo ci indi lu ci bokkul mën nga ko def ci maandute mën nga ko def ci njub jàpp naa man dama bokk ci def seen métier ci njub tey jii euh, su ma Adji Sarr jëloon yooyu jamono ne ma da bëgg nekk sama avocat te mu te ma jàpp ne war naa ko mën a nekk dama koy nekk su ma sonkoo jëloon ne ma dama bëgg nga nekk sama avocat te ma jàpp ne war naa ko mën a nekk mu nekk avocat. maanaam kon daal ku a woo rek camp boobu. nga ne eh, avocat ça ma ne avocat loolu la avocat xam nga xam nga lan la. nit moo lay wóolu. wóolu sa taxawaay wóolu sa xam-xam ne yow laa wóolu pour nga jàppale ma. ok mais léegi yow yaay seet. da mhm. nga mën nga ko wala mën nga ko. d' accord mais avocat en tant que défense koo xamante ne day xeex wàllum injustice ak yu ni mel tey boo gisoon ni kat camp bi fii injustice nekk fa da ngay. xam nga mën nga constitué wetu ci wetu ci wetu na nga naan parce que nañu wax dëgg rek làmmiñ ñaar rek la ngeen baal ma ci kàddu bi du ma wolof da ngay wax dëgg baa nga wax lu dul dëgg ñaar yooyu rek la ñaar leneen dul loolu soo nekkee ci ñuy jàppale Adji Sarr léegi li ngay jëkk wax. mooy quand xale bi ñaar fukki at la am ak lu ci topp xoolal rek nu ngi ko mbambee aji saar aji saar lu nekk wax nañ ko ko amul nit tey bu bëgg ñu wax la lu ñuy wax aji saar du kenn ko ko ko bëgg xëy na mi ngi ci dëggam donc avocat am dafa li muy wax danaan voilà nit bu nekk ci dëggam ñu ñëw rek tuumaal ko takkal ko bi takkal ñaawal deram dama bëgg rafetal deram soo nekkoon ci avocat Sonko da nga naan tu te rends compte regardez xale bu ndaw nekk fi tey am avenir est-ce que day nekk président du nekk président rek ñu bëgg ko yàqal nii avocat Sonko loolu la ñuy wax. léegi kon tey kan moo ci amee dëgg avocat Sonko wala avocat Adji Sarr kenn ku ci nekk danga jàpp ne ki ngay défendre ki war nga ko mën a défendre ndax Adji Sarr liñ ko teg li ñaaw na. yàq mhm. nañu deram ba ba ay mbokkam di jóg di ko défendre. Sonko ay million nit ñoo nekk ci mbedd mi tey jii soo ko tuddee sax nit ñu jóg waroo wax lii waroo def ñu attaqué la d'accord donc loolu le milieu le mooy ñu bàyyi. attekatu saytu bi nga xam mooy métier mhm. juge mu instruire ñun ñuy seetaan parce que nag sa lay daanele parce que nag maa ngi ñëw suñu justice Sénégal kayit kayit kayit bi ñuy attee ca kaw liñ ciy jëkk bind au nom du peuple Sénégal kiy atte li muy jëkk wax maa ngi atte ci turu waa Sénégal su dee ci suñu suñu tur la ñuy attee am nañu sañ-sañ ñun waa Sénégal suñu attee ba pare ñu ne atte bi ñu attee doy nañu wala doyuñu suñu doyee xayrun suñu doyul nag dama koy wax mhm. dama naan Sénégal ak mbir mi nu mu yemee fu mu agsi dañu toog sëriñ yëpp sëriñ yëpp jullit yëpp parce que dañuy juum naan jullit jullit yawut bi jullit la nasaraan bi jullit la musulman bi jullit la ñoom mooy jullit yi d'accord parce que ñoom ñuy julli mhm. ñi gëm yàlla ñëpp jullit yi suñu kilifa yi ñu bokk ci euh, waa nasaraan yi waa jàngu bi ñoo taxaw ñoom ñoo ñu ñaan ñaan waa senegal ñaan ñëpp ne leen dañu bëgg ngeen ànd ak dal bu ñu ñaanee sénégalais yi dal sénégalais yi may leen ak dal ñu ñaan nañu gëm justice bàyyi justice atte nañu bàyyi justice atte su dee justice mu ni muy attee dañu jàpp ne dafa jeng attewul na mu war a atte ñu dañ ñu may noonu ñu leen maye woon dé démb parce que dañ ñu ko ñaan nañu ànd ak dal wóolu justice justice def liggéeyam su justice deful liggéeyam ñu taxaw ak ñun ñu leen ah suñuy kilifa parce que ñooy suñuy kilifa ñaanoon ngeen ñu may nañ leen waaye kat lañ leen mayoon ak lañ ci yaakaaroon ne day am dañ koy doxalee ca dëgg. Hmm. amu leen lu ñu doxalee ca dëgg. may leen ñu ñu delloo buum nga ca boy boy ba. d'accord su boobaa ñu. d'accord major des observations après ma ñëw ko. voilà léegi xam nga réew ko ni ko maître waxee <clears throat> nit ñëpp ñoo ya comme ni nga ko waxee bu amee koo xam ne daf tey kañ bi daf ma violé wala kañ dafa sàcc sama xaalis il faut ñu laaj ko sa ban xaalis la sàcc ak nu mu ko sàcc man ti malay il faut que pour pour pour gouverner sénégalais yëpp ak ñuy wax fii que le président Macky Sall est l' autorité légitime pour l' instant dans ce pays xam nga li indi problème bi ci réew mi fii trouble yi am moo ñu jël président bu ñu élire mu nekk président la République du Sénégal nga bëgg ne ba bafouer son autorité. ne du dara day nangam day nangam loolu mooy indi l' instabilité. l'autorité légitime se Macky Sall pas un autre xam nga loolu déjà da nga koy jël gis nga le terme terrorisme c'est pas réservé aux islamistes loolu du erreur la terrorisme mooy képp koo xam ne da ngay user ay voies de fait ay violences quelconques des menaces pour quelqu'un def dara wala mu bañ ko def mooy ce qui se passe au Sénégal présentement ay menacé lakk ay kër rek di la saaga ci affaire yi même le ministre de l'Intérieur a menacé donc c'est du terrorisme terme boobu nit ñuy bañ a dégg il faut que ça soit clair ça ne concerne pas les musulmans ni les arabisants ni autres terrorisme c'est toutes les personnes yoo xam ne dañuy de la violence pour di pour pour dicter benn loi wala def quoi que ce soit l'histoire des force occultes ko quoi parce que c'est des manifestations simples supposées ay genre xale yu génn di tàcc fii saaga fii lu leen neex dem mais biñ demee ñoom ñoom en tant que autorité ba gis ñuy daj ay comment lappelle t di daaj ay boutiques ak ak ay armes de tirer. comme les forces de l'ordre mais il appelle c'est des forces occultes force occulte mooy toute force boo xam ne c'est pas répertorié dans ce qui est régalien force occulte mooy loolu mooy par exemple koo xam ne dafa même bu dee mystique on appelle ça force occulte gis nga tey man bu amoon xam-xam rey mën na léegi léegi ñu discuter ma mën la rey ma rey da ngay dégg ñu ne y a une force occulte dans ça loolu mooy loo xam ne bokkul ci liñ prévoir xam nga maintien de l'ordre li nit ñi prévoir mm-hmm. li nit ñi prévoir mm-hmm. mooy mu am manifestation nit ñi lakk pneu dóor nangam forcé barrage mais bu dee ci beneen côté bi en tant que état responsable am na droit xam nga fi ñu nekk nii ku mu nekk nga contre ku mu nekk nga faral mhm. nit 2024 jotagul que tout le monde attend 2024 on un président la République légitimement élu qui est là lu ko fi jëlee ëllëg mën na am ñu koy wax ñëpp di ko fekkee parce que bu boobaa leneen lay doon il faut mu clair xam nga loolu ku nekk ci réew bëgg jàmm doo nekk di wax di attaquer un président la République wala di wax ko que ce soit c'est c'est du c'est du n'importe quoi okay. l'essentiel à ne que dans un état de droit yàllaa xam li ñuy def ëllëg man tey ki ma gunge aéroport mu dem aéroport dañ ma booleeg moom depuis le Mali daa booboon ay bagages am France bi ñu wàccee président malien bi dañ ko bi ñu ko wàccee il était avec Ismaïla Cissé xaw ma mhm. daa booboon ay bagages am dem Mali yaakaar ni dox mu yegg waa ji Covid dee tey la ñuy biwaat France parce que projet bi yàqu na fii 2024 jotagul te ci tel lañ koy waxee nañ enregistré bande bi ba décembre deux mille vingt trois bande bi may wax nii nañ ko enregistré ba démal deux mille vingt trois ñëpp ñuy wax ak di géex di wax li yàlla di def fii ak deux mille kenn mënu ko ko nañ enregistré bande bi ba deux mille vingt quatre. vingt trois décembre. da xool ne yàlla ay pexem waaw ëpp na loolu waaw damay faral di ko wax toujours senegal damay wax naan su wax ci bëree rek dañuy fàtte xam-xam ak seetlu damay dégg ñu naan Ablaye Wade manifestation moo ko fi jëlee. Hmm. c'est pas vrai. Ablaye Wade 23 juin jóge ko fi 23 juin bu nit ñi fàtte lu ci ëpp ci manifestation yi 90 pour cent des manifestations place de l'Obélisque c'était autorisé c'était autorisé. Hmm. li indi xeex yi suñu autorisé su manifestation yi jeexee day am groupe bu jeune yu jóg taxaw ne on marche sur le palais ñu xeex ak alkaati yi wala gendarme yi. Hmm. Macky Sall il est élu dañ damay wax naan xëy na. parce que nag dañuy wax dëgg rek ku làmmiñ la may wax su waxul dëgg rek wax safaan wa Macky avec les les événements c'est vrai euh, euh, régime nekkoon na ci ay jafe-jafe c'est normal parce que sénégalais suñu toogee jeunes yi noonu noonu cette déferlante la mënul bañ créer ay problème waaye du looloo ko fii jëlee xam nga lu ko fii jëlee mm-hmm. appam mot d' accord 2024 su 2024 ñëwee gis nga sa Dakar appam mot moo ko fi jëlee su jotee dañuy taxaw ñu dem voté ñu voté suñu voté ba pare huit heures ni Abdou huit heures ni Abdou Diouf defoon ak Ablaye Wade Ablaye Wade def ko ak Macky Sall noonu lay demewaatee huit heures day jot ñu ne am nañu prix kii la ñu fal te du am werante bal du tàkk dara du d'accord ah donc voilà c'était juste pour rejoindre Major li mu doon wax dañ naan celui qui sème la terreur est un terroriste donc loolu kenn mënu ko dindi donc c'est un terme vraiment français donc say fekkee ne dañ dañ ko affecté kii ñuy def pas djihadiste ñi nga xamante dañ nekk comme waa Al-Qaïda li ñuy def moo tax wax leen terroriste donc nekkul li ñu naan rek dañu mel ni comme ñooñu en quelque sorte mm-hmm. Euh, sànq euh, olay dafa wax benn affaire bu am solo mu nekk euh, Zemmour dafa wax xaw ma na la ma koy fàttali ne que démenti am na par rapport ak français ne carrément loolu ñuy wax ne Macky Sall dañ ko ne mu kii. Mhm. mu bàyyi mu bàyyi Ousmane Sonko loolu amul benn. beneen bi encore may wax ci kaawu maître El Hadj Diouf donc li ñëpp di fi sujet mooy que le fait que mu assister clientam ci bi muy def kii bi mooy. bi muy def euh, bi muy euh, voilà point de presse bi te man je trouve que loolu man su fekkee ne dama ju wax ma su fekkee ne sa yow tey da nga ñëw def point de presse dafa naan tey dina baax nga ne ma bul wax ci point parce que li ci dossier bi la wala mën na nekk loo xamee amaana waruñu ko xam ci biir dossier bi donc ma yaakaar ne xëy na man côté boobu laa gisee que war na mën a assister clientam euh, ci côté boobu ba nga xamee ne que carrément tey du am yenn lu mu war a déraay wala loo xam ne ko fa wax te loo xam ne fa nekk ci biir secret bi la nga xam ne ba ëllëg après nañ ko ci mën a xam mhm. donc secret de l'instruction ak ne peut être am na ko am na loo xam ne moom ay mhm. dañ naan euh, kenn fekkewul te kenn mënu fay yëkkati teg sa loxo ca kaamil ne def na wala deful mhm. xam nga Sénégal fu ñu dañ naan ah waa ji sikk na ak moom mais dañ naan viol mais itam ma ñëw ci benn cas Euh, ci cas de bi xam nga tey man dama naan chaque fois suñuy loi dëkk ni ñu koy tënkee des fois ak suñuy suñuy euh, aada ak suñuy xalaat fu muy tolloo du benn ndax ñun ñëpp nekkuñu ay nasaraan te am na ñu bëri ñoo xam ne la il faut ko nekk ñu bëri jànguñu te itam dañu criminaliser kaawu viol mu am ñu ci ñu ci changé waat parce que dañu ne lee carrément nekkatul par exemple da ngay xeex ak ni wala nit ki su la nee bu ma laal rek wala bu ma bëgguma nga laal may soo ko laalee viol am na. te man depuis le début dafa am benn affaire bu may laaj dama naan la moo tax Adji naan ñaari arme yi donc je la question est-ce que Sonko dafa yor ñaari arme te que dañ naan lépp loo gis am na contrainte. man nag sama xam sama xalaatu laa wax donc su fa arme amee est-ce que contrainte amul donc deful deful deful deful ñu xëy suba leneen génn ci defe naa ne ñu ne ah xëy na. d'accord ku def yaa xam yoon yoon yoon yoon voilà yoon def liggéey ma sañoon. Euh, mënuñu dugg maa ngi ñëw ñu dugg ci yooyu détail parce que euh, ça ne am solo ñu fàttali rek principe bi ak mbir mi nan lay demee waaye def naag deful parce que euh, suñ ko defee rek wa ilaa dañuy contre Sonko wa ilaa dañuy contre Adji loolu suñu cër parce que xamuñu ci dara hmm. lu ñu mën a wax rek mooy am na tuuma gu ñu teg diw mbir maa ngi ci yoon nañu bàyyi yoon doxal lu mu war a doxal te lépp jaar ci yoon su jaaree ci yoon ñu ne xayrun parce que nag gis nga suñu suñu attee ba pare dañu gis nga dañuy gis nga man bi ma nekk étudiant nekk université xam nga su lu ñuy jëkk jàng mooy lu ñuy wax commentaire d'arrêt suñu attee ba pare loolu ñu atte dañ koy saytu parfois nag suñ ko saytoo ne ki ko atte def na lu baax def na lu bon am na xam-xam amul xam-xam wala li mu attee c'est tellement xëy na am na lu lalu lu lalu lu lalu ci suuf ñun loolu lañ ci mën waaye bon est-ce que amoon na arme xaw ma ci dara est-ce que am na lu ñu jokkoo xaw ma ci dara ñoom ñaar ñoo xam preuve yi ba ñu ngi koy saytu su bés ba amee ba ñu taxaw ku nekk mën nga am li nga wax mais fu mu nekk daal la may may ko vas-y vas-y demal major la jëm parce que tout à l'heure il de de de de de boo gisee euh, koo xamante dafa yor gànnaay rek euh, di di nit ñi mun nañ leen wooyee. des terroristes ah, déglu ma rek da nga ne gis nañ ay ñoo xam ne dañoo yor gànnaay di dajj ay boutique n'a pas dit ça mais major tu me laisses terminer ma question après tu viens parce que li ngay wax on t'a pas vas-y, dit ça. Vas-y. On a dit, mm-hmm. toute personne boo xam ne mm-hmm. il menace quelqu'un par des voies de fait mm-hmm. violence légère des violences pour qu'il fasse ou qu'il s'abstienne de faire et du, c'est du, si tu le terrorises c'est comme le chantage mooy définition parfait kenn waxul arme moi je suis tout à armé et major il a dit tout à l'heure que y a des personnes yoo xam ne gis nañ leen ci manifestation. ñu ngi di daj ay ay buntu di tiire ay nit. mais ces personnes là Pape aussi faut que tamit ñuy bañ di lëndëmal xel yi ces personnes là y a y les vidéos sont là. Euh, tout le monde a filmé on a vu que ces personnes là ce sont des nervis et ces nervis là ñu ngi woon ci ci ci nu mu tuddati policiers yi lañ àndaloon. attends s'il te plaît oui eh, vous savez vous savez laissez-moi parler s'il vous plaît ko mu daaneel après di ngeen di ngeen mën a tu pourras venir voilà man je dis juste que ne man nervi yi ma ñi ma gisoon ñuy tiire si mbedd mi te ñu gis leen si film yi ce sont des nervi yoo xamante ne ñu ngi àndoon ak policiers yor seen i gourdon yor seen i jaasi di dóor nit ñi gis nañ si koo xam ne sax mbeñ na ay étudiants gis nañ si ñoo xamante ne jël nañ ay numtati euh, lacrymogène dugal ko ci euh, yëre garde corps mais ces personnes là ce sont des nervis et ces personnes là du ay nit ñoo xam ne ñoo àndoon ak population bi ce sont ces personnes là yi nga xamante ne ci police lañ àndaloon nekk si ginnaaw police di daw ci biir nit ñi nañu wax xaaral ma eggali sama question ba pare ces personnes là soo bëggee wax ne ñooy force occulte alors ça ne vient pas de la population parce que Sénégal ñëpp xam a de terroristes et de force occulte si tu pas tu peux pas comprendre et la population les gens qui nous suivent ne vont pas comprendre tu vas me laisser finir ma ne l'État a le droit c'est l'État qui est l'autorité légitime pas toi pas un autre mhm. gis nga l'État qui analyse et qui donne des des des c'est l'État a ce sont ces nervis alors si vous et nervis mais nervis pas nervis c'est autre chose depuis lors vous arrêtez les gens et vous n'arrêtez pas franchement vous ne pouvez pas traiter la population de forces occultes et de nervis euh, de forces occultes et de terroristes alors que Malaise. ces terroristes là et ces nervis là étaient derrière la police qui avait des gourdons des des des voilà, et tout cela et après vous voulez le traiter des populations vous venez expliquer que voilà, la parler de maçonnerie attendez attendez toi là ta position on comprend il faut qu'on vous explique pour que ñuy déglu xam dans un état de droit dans l'interprétation des termes juridiques tous ceux qui font la peur à d'autres pour qu'ils s'abstiennent de faire ou de faire tu les terrorises mhm. c'est du terrorisme que ce que dit le ministre de la police force occulte et eh, l'État ne gère pas de l'opposition la police et la gendarmerie dañuy gérer l'ordre public si des gens viennent qui, tirent sur des portes de fermées et des banques c'est des forces occultes mhm. c'est des forces imprévues c'est ce qu'on appelle les forces occultes force occulte mooy loo xam ne. c'est pas mais enquête ko leeral la mais c'est là mais ils ont mais ils ont le droit de le dire leur problème les vidéos sont là c'est de manigancer les populations contre l'autorité légitime contre l'État ce qui nit ñi dama ko wax ci olof pour ñu dégg population yi gis nga discours bi nit ñi tëdd fii population yi amuñu ci intérêt comme ni ko saa yu maître waxee amuñu ci intérêt xam nga lan mooy intérêt bi ñaari sénégalais ñoo am problème. nit ci ñëpp maandu ñu dem tribunal layoo. d'accord bu jeex xam nga tey jàpp na Guy Marius Sagna Assane Diouf parce que li leen di jiiñ mooy ak ñoom Clédor ak ñoom seen ay ni mu def ñooñu léegi ñooñee nga waxante ay forces occultes lan mooy tere état mu dem neutraliser mais mi jàpp puisque vidéo yi wane la non les gens parlent autrement mooy ñi tey bu ñu ma newoon ministère de je ferai pire que ministre ah je le parce que je ne connais le droit gis nga li ngeen bëgg a instauré ci dëkk bi ça ne passera pas gis nga même ki ngeen di ku ngeen di mën a jàppale muy Ousmane Sonko. bu bu ñëwoon non dëgg la non jàppale leen ko non non non. ah loolu la loolu la. ki ngeen di jàppale jàppale Sonko non non non non dama lay mu ñëw Pape Pape bu ñëwoon ñun lay jëm Pape objection objection objection objection bu ñëwoon parce que bu ngeen ne yéen ki ngeen di jàppale ça veut dire que da ngay accuser lay jël lépp wax la wa non non dégg ko rek objection jël retiré ko retiré ko ba pare soog a jàll dama ne bu ñëwee ñun lay soxla parce que bu ñëwee il voudra un état de droit où il y a l'ordre public des gens responsables des gens disciplinés parce qu'il ne souhaite pas hériter un état qui est qui est qui est qui est débonnaire mm -hmm. un état qui n'est qui n'est plus respectueux où les populations ne sont plus respectueuses des, des droit et de l'autorité parce que lui c'est une autorité comme ni ko maître waxee li muy soxla ëllëg état bu discipliné la bëgg bu koy jël dafa bëgg nit ñu normal ñoo xam ne bu leen dara naqaree wala wala am beneen problème ñu am de l'indiscipline gis nga si l'état du Sénégal bu dee nit ñi dañ leen di inciter à la l'indiscipline et à la mais monsieur ce qu'il dit c'est grave. non bien sûr yéen ni ngeen di jàppale mel ni les journalistes dañu. non dama ne non mais li ma wax la mais bu ngeen di wax. il a parlé eh, ma ne na lu muy wax jël moo ko prononcé ma ne ko. man ci léegi dëgg la ñu wax la li nga ni leer na ci dëgg ngeen dégagé ma ne c'est de l'indiscipline. 2024 soreetul. Ibrahima Sall ñu bàyyi Ibrahima dafa baax discipline dafa baax gis nga fii autorité bu ñëw droit la bëgg Ibrahima waaw xanaa ma rebondir tuuti rek sànq si li monsieur le ministre wax c'est important parce que wax na ne ay manifestation am na fii ñu mel ni ay Moustapha Niass génn tëye xeer mais damay préciser foofu ne contexte yi duñu benn il faut que ñu jël contexte yi ba pare xam nga dañuy wax révolution pacifique est lii xew ni du révolution évolution la évolution may ma xam nga xam nga xam nga xam nga ay ay man ma gis ay màgget ci mbedd mi ay màgget ay màgget ak ay xale damay poser wu question ndax gis màgget yi ci mbedd mi moo gën wala gis danger gis xale gis xale yi ci mbedd fan la danger bi nekk ban génération ñoo génnee ban âge la ñu am ñi génnoon ci beneen on parle de de force occulte force occulte kenn mënu ko wax fii nit ñi ñoo génne kenn ku nekk ak li la metti nga manifester ko ñii couvre-feu bi moo leen metti woon ñii lekkatuñu naanatuñu amatuñu ceeb amatuñu dëwliñ bi ñu dajee Auchan yi profitoo nañ si jël si loo xam ne nii moomuñu ko nga nga mën ko analyser si niveau bu nekk gis nga mbir mi association des femmes juristes du Sénégal ma di leen nuyu déggoo leen ba léegi ñu prononcé aussi parce que ay jigéen lañ ñoo xam ne dañu am xam-xam yore association bu mag a mag mais le pourquoi nit ñi dégguñu leen si parce que tamit mbir mi c'est une situation très difficile boo xam ne yuuxu mën na jib fuñ ko foogewul te bu jibee fuñ ko foogewul gàcc gàcc gàcc am si dañuy leeral ñun major ànduñu ak Ousmane xamuñu ko mësuñu ko gis ànduñu ak président Macky Sall ànduñu ak moom tey ànduñu ak ñun askanu Sénégal la ñu àndal dañuy analyser ay faits procès bii si si place bi la ñëw loo xam ne ndaw si moo dem gendarmerie toog ak enquêteur bi wax ñu bind ko xam nga ñi ngi wax euh, secret de l'instruction muy article onze article onze mooy mooy wax ci secret de l'instruction kooku violé nañ ko bu yàgg ci contrôle euh, monsieur le ministre laay waxee bu ma juumee mu corrigé ma loolu violé nañ ko bu yàgg mi ngi si place publique bi nit ñi aussi waaw ah. waaw boo jëlee parole nga nga nga waaw gàggante ba waaw xam nga xam nga instruction mi ngi commencé ci lu ñuy wax réquisitoire introductif foofu lay commencé fii enquête préliminaire la enquête préliminaire bi am na confidentialité mhm. mais bokkul ci secret de l'instruction donc loolu enquête la te dossier boobule enquête bi xam nañu ñaata exemplaire la ak kan kan lañ ko jox du du du du exemplaire yëpp ñaari exemplaire kese mooy dem au procureur yu ci des am na beneen yoon bu ñuy dem donc loolu loolu su génnee c'est vrai document administratif la am na benn caractère confidentiel warul nekk ci mbedd mi waaye amul caractère u secret de l'instruction. ok ah, waaw pré non ah, damay yeggali non damay damay damay damay damay damay damay yeggali dama koy dama nekk toujours en phase ak moom moom wax na enquête préliminaire man waxuma en tant enquête préliminaire dossier bi nga xam ne moom moo nekk ci juge d'instruction bi laa wax. xam nga dara day nekk ci xam nga juge d'instruction information judiciaire tijjeeku na. mooy mi ngi approfondir enquête préliminaire bi nga xam ne police wala gendarmerie def nañu mais waxuma sa affaire Adji Sarr mais gis nañu fi cabinet d'instruction boo xam ne da ngay gis la a juge bi waxtaanee ak nit ki. mais boo génnee da koy nit ñi dañ koy waxtaanee si place publique dañ koy waxtaanee ci place publique bi. donc kon est-ce que mën nañu wax secret walla tey jii est-ce que mën nañu wax enquête avec e accent circon circon lii dafa nekk situation boo xam ne sénégalais nga ci am liberté d'expression. mais li ñu ciy wax da nga koy wax la ñu koy la ñu koy waxee ñun ay nekkuñu fi pour juger Adji Sarr Adji Sarr victime la ci affaire bi victime la xale la boo xam ne nii dañ ko jël manipuler ko utiliser ko man ay propos li mu wax am na ci lenn loo xam ne tey mi ngi daw ci TikTok bi mi ngi daw ci Facebook bi te loolu suba mën na jural musiba suñuy doom ndax am na lu mu wax ci ay waxam ne loolu buñ ko defee dafay yàq ëmb sama benn dëkkandoo rek bërka démb def si dóor benn benn xale bu jigéen buñ ko tuddee bu am 15 ans waaw boo xam ne mi ngi waxtaan ak beneen xaritam bu jigéen mi ngi naan que <laughs> mi waaw waaw <laughs> waaw xam nga xam nga xam nga xam nga may ko may ko mu nga loolu dafa graaw xam nga mbir mi bu coow amee ba ay bakken wadd rek Adji Sarr man su ma ko doon conseillé dama naan ko bul wax comme moom dëgg lay sàkku la la la loi est là pour pour pour pour faire euh, euh pour faire régner l'ordre social man damay jébal sama bopp yoon dëkk bi am nañ fi ay magistrats émérite gis nga muy Adji Sarr di Ousmane Sonko bis bu ñu jàkkaarloo ak juge tribunal bi dinañ xam ne lépp dëgg la nous avons des magistrats émérites ñoo xam ne dañu am ay faculté d'écoute de lire et de comprendre ah. de très grands magistrats dans ce pays ñoo xam ne tey jii ñoom waxuma sax ñu taxawal Sonko wala Adji Sarr devant la barre mais ñoom fi ñu toog rek mën nañu àtte mbir mi parce que dañ lay laaj ay preuves si li ngay wax chaque jour ma cité ko comme exemple am na nit koo xam ne doomam bu jigéen giñ na ko fi viol test ADN moo ko génn prison muy Jaaji Sarr da ko Rufisque tëdd na neuf mois de prison donc viol du ay caaxaan boo xam ne da ngay yeewu suba rek giñ ko nit ñu jël ko tëj ko yow devant la barre Adji Sarr dina indi ay éléments de preuve tangible yiy wane ne Ousmane ko viol bi mu koy giñ ni def na ko ko soo ko aussi moom dina dina dina dina indi ay firnde yoo xam ne dafay weddi loolu Adji Sarr wax li si des nag xam nga ne fukki ponkalu avocat Ousmane Sonko am ko ak ponkalu avocat yi nga xam ne nii ñoom ñoo dar Adji Sarr ak attekat yoo xam ne vraiment rafetlu naa seen xam-xam foofu ala kulli al bu procès bi équitable exécutif bañ si dugal loxoom maanaam exécutif nag da ciy génn loxom dañuy dénoncer l'émission de l'exécutif ci caaru mbir yu mel nii. Hmm. magistrats yi ñoom ñooy jël seen responsabilité la justice am na défi tey ci affaire Ousmane Sonko bi justice bi dafa am défi. pour sénégalais yi wóoluwaat leen pour sénégalais yi ñemewaat leen justice dafa am défi. magistrat yi ñoom ñooy jël affaire bi en wane seen diisaay loxo euh, ci biir wax bi. yaa ngi dégg noonu dama xool dama am affaire ma koy ñaawlu ci biir euh, waxu Yves bi mooy dafa nit ñi dañuy wax moo tax ñuy sàcc depuis kañ la ñuy nangu sàcc ci biir dëkk sàcc nekk loo xam dañ ko war a cautionné de quel bord bu mu nekk kon nañu génn sàcc yi nekk ci biir kaso bi dañoo xiif moo tax ñu sàcc donc y donc na yoon def liggéeyam sàcc sàcc la ka sàcc ay milliards ka sàcc biscuit ak sàcc la. yaa ngi dégg non non si may wax la dama wax danga de danga di justifié dañoo ne dañ ci wax seetaan nañu vidéo yi vidéo yi ça sort de n'importe partout gis nañ jam paaka gis nañ leen xam nga yi benn lañ ci wane bu ñuy tiiga dañ jëg saa ñu yóbbu donc mënuñ loolu il faut comme ni nga waxee enquête nga encore am na ñu ñuy jàpp. xam nga donc ñi nga xam naan dañuy taal kër yi man fa am affaire boo xam chaque fois ma li ñu naan ay euh, détenu politique. xam jàppee nga xam ne ci affaire politique la peut-être mën naa sax jàppee sax ko naan dafa détourné ay biens d'accord détenu politique mais ki nga xam dafa taal kër jàmbur ki nga xam ne dafay joxe ay wax yoo xam ay menaces ka nga xamee danaan dem leen ci kër soo leen demee taal leen kër ñuy wax nit ñi di dégg te ci affaire bi mooy lañ doon wax ca euh, audio yëpp processus boobu moo jàll taal nañu kër ñu ñu waxoon ñëpp. d'accord sàcc lañu waxoon ñëpp. donc maintenant beneen bi encore man dama naan Sénégal warul nekk dëkk boo xamee ni dañ fiy concevoir viol walla vol parce que itam dëkk bi dafa am yoon su dee loolu dong. xam nga ñu ngi naan tey am nañu naan dossier bi nañ ko bàyyi ndax jàmm su dee loolu donc nañu fekk tey jii ñi nga xamee ñi sàcc ñi ni ñu génne ñi ñu sàcc nekk ci kaso yëpp parce que mm. dañu xiif mm. yaa ngi dégg donc man foofu du ma fa am ñoo xamee dañoo dem liggéey ba dee xamuñu ñu daanee seen doole ñu sàcc leen ñu nekkoon nangam ak nangam te itam dañu wax benn affaire euh, foo euh, théorie bi ñuy wax mais ka nga ñëw